décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel génne. bi mu génnee automatiquement man nee naa. da nga ko approprié wu. da voilà dama ne décision conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours. mënuñ ci dem leneen. automatiquement. Mm-hmm. su su su su waxoon leneen itam. ci loolu dañ ci conformé wu. Mm-hmm. lu mu munti wax rek on se conforme par rapport à ça maintenant à côté de cela euh, su loolu yëpp amee ba nit ñi wax ba ba ba ba ba jël décision nañu topp rek. li nga xam ne moom mooy décision bi maintenant ni ñu koy toppee les modalité ku ci nekk rôle bi ñu si war a jouer mhm. exécutif ban rôle la si jouer les acteurs ñi ñëw ci ci ci ci ci dialogue bi naka lañ ci ñëwee loolu beneen fànn la. boo xam ne xëy na peut-être man bokkuma ci acteur yooyu. waaye maintenant vous le parlement est-ce que am ngeen rôle ci li dispositif bi jamono ji ah ginnaaw décret bi nga xam ne nee na par décret euh, loi bi nga xam ne euh, conseil neenal na ko tey jii yéen euh, lan fan ban taxawaay ngeen ci war a. parlement am amul ci benn taxawaay. ni nii sànq bi c'est fini amatu leen ci benn. non ban lan la fi parlement mën a mën a mën a mën a tegaat comme jéego amul. Mhm. li ma xam mooy tey mbir mi conseil bi mu waxee ki mu waxal. Euh, c'est les Sénégalais d'une manière générale mais euh, le premier interpellé mooy exécutif bi. Mhm. exécutif maanaam ki nga xam ne moom mooy euh, organiser ay élections le voilà. président voilà on a eu un communiqué sans... parlement organisé wul euh, le le le judiciaire non plus moom daf fi nekk rek pour su élection jeexee par mm -hmm. exemple conseil constitutionnel bu élection jeexee ñu ñu àtte ne ah élection yi ndax jaar na yoon wala jaarul yoon mhm. mais foofu foofu rôle parlement nekku ci